ay question bonus la ah. onze types euh, équipe Sénégal de tous les temps ak jafe li tax mu jafe gis nga xam nga dama laaj onze types bu équipe bu Sénégal suñ ko doon defar tey gis nga l'équipe actuelle peut-être dana am Sadio Mané gisoo équipe bi ñu def après cinquante ans de football defar nañu équipe après cinquante ans de football ñan lañ ñi ñoo fa ne gardien de but c'était entre Amady Thiam ou Cheikh Seck ñoom ñaar kenn ki day nekk titulaire kenn ki remplacé nekk nekk pendant au lieu de remplaçant équipe bu équipe bu cinquantenaire Sénégal ah Amady Thiam Cheikh Seck les deux gardiens ñoom ñaar kenn la ci kenn ki nekk Yérim Diagne arrière droit Eusebio moo di arrière gauche. Ngom Germain sa papa la xamuloo ko sa papa Ousmane Paye xam na Ngom Germain ak Roger Mendy ñooy les deux arrières centraux ci digg bi Domingo Mendy moo fa nekk ak Cheikh Thioune moom la ñuy wax le maréchal Cheikh Thioune c' était l' du deuxième bi du Sénégal quand bation la France à Dakar en en 63 2 bu njëkk bi Youssou Ndiaye évoqué naa ko tout à l'heure moo doon but bi gënoon gaaw avant bu amadi Sagna Euh, Cheikh Thioune ak Domingo Mendy comme les milieux terrain l'équipe 4-2-4 lañ ko def ailier yi benn bi à droite Thierno Youm à gauche Charles Wade Charles Wade mooy maamu Idrissa Gana Gueye <laughs> ailier droit Thierno Youm ailier gauche maamu Idrissa Gana Gueye góor gaa ngi tudd Charles Wade yal na ko yàlla yërëm ndeysaan génn na àddina daaw mi ngi fii ci Cambérène ah. ñaari avant-centre yi gaa ñi di hésité ci diggante Mbay Fall ak Matar Niang débat bi tàng trop Mbay Fall ak Matar Niang man ma gëm ni Matar Niang la gaa ñi ni c'est Mbay Fall mu ànd ak Bokande comme avant-centre man Matar Niang laa wax euh, majorité bi indi Mbay Fall mu ànd ak Bokande comme avant-centre ma ni Mbay Fall yow boo doon defar équipe du siècle yàq Matar Niang ngeen nekk en balance pour avant-centre nooy def mu ni ma ma jox sama ma yow gis nga de poste bi gars yi jox nañ ko mbay Fall Mbaye Fall ni déedéet Matar la parce que gis nga Matar gisuloo ko de Cristiano Ronaldo la woon Messi la woon football ak bëggoon moom bëggul football mm-hmm. bëggul football dafa ñàkk bëgg football ba def na benn CAN 65 boobu ñun ñoo waroon finaal ñu foq foqati suñu final on était à plus 4 marqué 5 encaissé 1 Tunisie plus 4 marqué 4 encaissé 0 ñu foqati suñu final jox ko Tunisie faire passer la meilleure défense au lieu de la meilleure attaque ca reporter ba suñu papa Alou daal di ni pour nous éliminer ils ont fait recours aux subtilités de l'Algérie ni. 4-0 moo gën a fort 5-1 bu doon tey ça ne se discute pas parce que l'équipe qui marque le plus grand nombre de buts passe kaan boobu la Matar def def ci ay jaloore jaloore yu rëy maa ngi fàttaliku keroog ba ñoo door suñu match d'ouverture Éthiopie cinq 1 5-1 deux buts de Matar Niang deux de Oumar Gueye Samb benn bu Louis Camara 5-1 lañ door Éthiopie ajuma heure jumaa ja maa ngi koy fàttaliku équipe boobu rëy trop 68 ñuy dellu Asmara Matar ni du dem lu tax ñëw na ba ci stage bi mu ni munul toog regroupement entraînement buggul regroupement il arrivait même à son club muy ñaan entraîneur entraîneur bi bu ñu waree jouer par exemple ëllëg dimanche gaa yi nekk regroupement samedi mu ñaan entraîneur bi mu may ko mu dem fanaani seen kër parce que bu nekkee au regroupement du nelaw mais comme entraîneur bi psychologue la di pédagogue di ancien footballeur comme lui may saluer sa pédagogie gaañu na Eugène jata di Koué moo doon entraîneur Espoir Dakar Eugène Diatta d'accord daf ko naan may ma ma fanaani soo bëggee ma def un grand match rek bàyyi ma fanaani suñu kër Matar ñaa ngi woon noonu bëggul woon rigueuru euh, préparation match dem na ba France joué ci équipe bu ndaw bu ñuy wax Ciotat équipe bu presque entreprise équipe yu mag yi ko gis topp ko mu bañ lu tax mu bañ parce que bëggul rigueuru professionnalisme noonu la yaat ma jug jóge woon Marseille yaat ma jug dem na ba Marseille jóge fa ndax lii yaat ma jug ak Matar ñoo ñoo niroo ci loolu boobu rigueur la ñu bëggul ndeysaan soit di en passant il y quelques années la fille de Matar Niang est venue chez ma tonton lay dégg naa sam sa xarit la woon ma ne ko sa papa bi muy nekk sama xarit booba xale yi tuuti lañu ca ndar muy vacances buy ñëw indaale bal bu rëy bi muy nekk sama xarit feeñagul sax ci football bi mu ni ma xaw ma ko bi muy gaañu booba xale la c'est vrai que Matar ngi gaañu en 83 mu ni sama papa bi muy gaañu xale la xaw ma ko te dégg naa ni am nga ay photo ma defaral ko photo Matar Ñaay may ko doomam bu jigéen soit dit en passant man tey jii boo ma nee quel est le meilleur de tous les temps man la Matar Ñaay alors loolu su mu fa logique boobu bu mu fa duggee te xam nga lu ñu convaincre woon ci diggante Matar ñàkk Mbay Fall sama xarit yaat ma jóg il m'a dit Mbaye gën a complet ma ne ko comment mu ni ma Matar est axial mbay mën na bu tëjoo mu dem à gauche bu tëjoo mu dem à droite moo gën a mën a décrocher Matar moo gën a mobile Matar waaw moo ko gën di bari dugg-dugg Mbay Fall boole check nag technique am ni Matar Niang di gàddoo match di ko gagné noonu la mbay Fall daan gàddoo match dikk ko léegi suñu jéemoon defar équipe du Sénégal la meilleure de tous les temps Lamine Koura du ci du ci génn Lamine Koura espoir de Saint-Louis équipe nationale de 60 à 63 et cetera danaa ci def Sayer Sène papay Oumar Gueye Sène Sayer Sène papay Oumar Gueye Sène sportif accompli bu taxawee rek nga xam ni athlète la et cetera et cetera bon danaa ci def Youssou Ndiaye l'ancien ministre de sports ak mën football bi ka Sénégal di découvrir booba dara newutu fa ndax Youssou Ndiaye doomu ndar la ñu ko daan seetaan ndar muy nawetaan xam nga seen équipe nawetaan ca ndar dama tuddoon France di sol maillot bleu culotte blanche bas rouge la mu mën football yëpp football naka équipe bu nawetaan ba ca sanc ba ca France après la mujj nekk Bayard équipe bi tudd Bayard Youssou Ndiaye nii dama ko def bon dañu bari mais par contre soo ma laajoon équipe nationale yëpp ban moom ma ci gënal. waaw gis naa yëpp gis naa yëpp am na sax bu nga xam ne xaw naa ci bokk en 65 parce que ba ñuy dem suñu kaan bu jëkk j'étais présélectionné je n'ai pas été retenu dans la sélection définitive parce que boobu maa ngi joué en première division ci équipe bi di Linguère tey tuddoon Saint-Louisien mais boo ma laajee bu ma ci gënal bu 68 moo ma gënal. 68 gardien de but Amady Thiam wala Toumani Diallo wala Massata Diallo nga am à droite Yérim Diagne à gauche les arrières centraux Moustapha Diagne ak Issa Mbaye digg bi ñett la woon ñaaree joué Louis Camara Louis Gomis wala Chita Cissé attaquant yi ñoo bare woon attaquant yi di nga fa fekk jéeme Matar ñaa door na ak ñoom yaat ma juga fa Baye Mousse Paye ma nga fa Demba Cooy ma nga fa Pape Ndiaye ma nga fa Jéeme ma nga fa Petit Dia ma nga fa instant Diagne bu Espoir de Saint-Louis ma nga fa entraîneur bi dafay xool rek ku ku ku opérationnel ku wér ndax kenn gaañuwul ana ñuy wér pour tey mu jël ci ci lañu dem à la CAN 68 éthiopie yëpp di ney dem naa fa ay en 99 ñu ma leen di laaj éthiopiens yi wër ma di ma laaj ana diw ana diw ana diw parce que football ba fa Sénégal football ba léegi ñu ngi ko fay waxtaane en 1999 laa fa dellu ñu ma leen di laaj loolu c'était en 1968 Sénégal naka jekk pays de footballeur la woon mais attention sénégal yi nañu bàyyi wax pays de football du ñu pays de football nous sommes de footballeur parce que du ñu direction pays de football day nekk direction l'Europe est un continent de football bërki démb bu Angleterre dafa final ñaari coupe d'Europe ak ñeenti équipe bu Angleterre man leen attention du ñu anglais ce sont des étrangers boo xoolee Arsenal Chelsea Liverpool Tottenham étranger yaa fa nekk da ngay seet kuy anglais donc l'Angleterre est en passe d'être un pays de football parce que tous les grands étrangers ña nga fa et il va devenir plus tard pays de footballeurs c'est tellement vrai que les gens oublient que l'Angleterre est non championne du monde en titre Italie mooy vice championne du monde ci junior parce que les grands footballeurs yi fa nekk dañuy faire progresser de jeunes anglais léegi ca kanam tuuti daa dégg Angleterre championne du monde de la de la de la de la catégorie majeure